waar bi nga xam ni moom la ñu jaglelee wàllum càmm mi muy càmmum laddum mi mel na ne kat ndar kepp nañ ko fii ci dëkk yi di Touba ak Mbacké ñi nga xam ni ñooy kilifa yi ci association bi yëngatu ci càmm ak laddum ak yeneen xeet yi nga xam ni xeet ñaññeeku lañu ñoom kat dal nañu délégation bu bàyyi ko ci ministre Aminata Mbengue Ndiaye ci njiitu Khadim Gueye di conseil technique numéro un ànd ak ay techniciens ci département bi ak i directeurs délégation bi nag ñi leen tatagal mooy Bada Dieng di président association bi ak maire Mbacke Abdou Mbacke Daw ci biir jotaay bi ñi nga xam ne ñooy sunu mbokki sàmm yi wax nañu wàccuwaay yi nga xam ne càmm am na ko ci suqali am réew rawatina ci wàllum koom ci kaw loolu nag yëkkati nañu seen kàddu wax ne am na yenn jafe-jafe yu njànkonteel lu deme ni dundub jur gi ak li nga xam ne mooy càcc gi nga xam ni moom la ñu nemmee ko ñu dëkkee ko ñoom sàmm yi Abdoul Aziz Ndiaye moom mooy secrétaire général.